ba peut-être amana mënoo xey bés ba ngoon te do dégg suñu tour ci radio wala ci télé nit nak bu yeggé foofu ci lo xamné demb ak barki demb. Muso tok ba xalaat ni di nga dugg ci loolu dañ la ci xam yeen ngeeni suñu kilifa ci fi ngeen ñu fété baxna ñu am xamanté bo xamné xamanté bu wor lay doon yalla ñu ma am occasion bobu, motax makoy ma parce que dañu nekk jamono joo xam ne adversité ak xëccoo ak noonoo mën na tax lu ne dinañ ko dégg ci nit te jamono information ak désinformation la ñu nekk in jaakum faasiqum bi naba in fatabayyanu bi alquran waxoon jafe na trop jëfe rek tey ci suñu réew mi léeg-léeg ma dégg leen ngeen wax ci lu jëm ci suñu mbokk ñiy tas xibaar yi te muy dëggit nit ñi wër tam di wax bari na te ci lo xamne teggul ci xam nit ki wala xam ki moy kan lélé far nañ dégg ñu naan dafa ñew pour yee fitna ci dëkk bi dañ ko yabal pour mu def li <laughs> lool lepp ñu dégg ci dëkk bi ba tax nak ñu amone yéene ak kilifa yi waxtaan ak ñom ñun amuñu dudul gu rafet ci réew mi ñoyé fitna ci réew mi tuti nañ ci yàllaa def nag ñépp mënuñoo bokk bokk gis inna xalaqnaakum bi muy tudd ne inna xalaqnaakum min zakari wa unsa wa jaalnaakum shuuba su ko neexoon it loolu du am ñun ñëpp benn rek lañuy doon ci xeet ci euh, euh, waaso ci diine ak yeneen ak yeneen waaye moom moo soob moom la soob mu def loolu parce que xel yëpp mënuñu méngoo bokk waye lepp nak ñu ngi koy essayer def ci rafetal ci jup ak jubal ak ci kenn ku neñu jox la sa gëdd ba mu mat moo tax it euh, sëñ bi euh, ñu ngi leni gëreem bu baax ci dalal gi euh, di len wax ni ki tok sen kanam sen dom la mën naa ne sax sen seut la ndax ku am ñen fukki at ak juroom warna naa la it nu bëgg bu ñu am sens interdit lu ngeen gis ci ñun lu jàpp ni lii du yoon wala ñu ba ñu ñëw ngeen nañu lii du yoon bu ko def te boobaa di ngeen gis lan moo ci suñu taxawaay loolu laa bëggoon daaneele ci kàddu gi di leen gërëm bu baax bañ a guddal asalaamualeykum wa rahmatulah barakaatu.